lii doyati na waar mbokki internet yi àndal ci seen rubrique faits divers yi rubrique bi nga xam ni saa suñu xëyee dañ leen koy faram-fàcceel ngeen di jariñu foo leen mën a nekk ci àdduna bi rawatina biir senegal ak diwaanu Thiès ziar nañ leen bu baax a baax tey damay daw ci tribunal bu ndakaaru foofu day kaa bu rëy rëy mën naa ko tudde sax cas communautaire lañ fa doon atte benn ndaw maanaam benn soxna moom la fa ab cousin am dénkoon ab multi service muy doxal ba jëmmi jamono mu luubal ca lu toll ci fukki million ak juróom-benn seize millions ba pare daw wuti ay sëriñ ngir tëj gémmiñu patron ba du wax xaalis boobu seey malheureusement sëriñ samu daw wuti ay dóorkat lañu nekkuñu sëriñ yi tariyaax yoo xam ne wax dëgg la mu yaakaaroon ci ñoom mën nañu ko ay dóorkat yu son sonnoon lañ togg di xaar xaalis mu ñëw mu nekk wërsëg ci ñoom ñooña lekk ci moom ay millions yu baree baree bari mbokk internet yi loolu laa leen fa yéene nit li ay ca ñu dem ci fee yi li tubaab naan désormais baatub temps wala ku amee pouvoir mystique boo koy nit li soxna si di wuyoo ci turu bee Jóob dootu la dégg day daal di samp ay xelam daw ndax la mu dund moom soxna soosu li ñu gàll ci dem mooy ay koppar yu tara tara tar yoo xam ni daa demoon ci ay charlatan maanaam ñu yëngu ci wàllum sëriñu tariyaax ngir nag am fa benn solution miraculeuse maanaam la nga xam ni moo nekkoon tawatam ñooña saafara ko ci seen baatin ci kaw loolu li ko waral rek moom gérante multiservice boobu mbokk internet yi dafa détourné lu toll ci 16 millions ci kees ga nga xam ni moo nekk ci multi service ba ba pare nag cousin ba ni ko dama lay yóbbu ci yoon ndax xaalis bu toll nii bu génnee ci entreprise bi nga xam ne tàmbali nañ ko day ndër mellu moo xam ne nag cousin bi fa mu teg tànkam dëgg gu wér péng la cala nag daa di samp ay xelam dem ci sëriñ si ngir nag am ay pouvoir mystique ba mën a tëj gémmiñu patron boobule mu daal di fàtte mbir mi ba faw dootu dugal mukk ci xelam mbiri xaalis ci kaw loolu ca la dem nag solliciter service ku nuy wax Seyni diina Si moom bi Laabidina Si moomu di yëngu ci wàll wi bi diina daal di koy renvoyer ndax la mu ko wax ni ko man day problème mu détournement laa am ci barab bi ma doon liggéeyee ba nu xaymaa kees ga lu toll ci fukki million ak juróom-benn rot na ca maanaam seey na ci samay loxo te loolo sama patron nee na deyi bu ma ko fayut ci kaso bi laa jëm da ngay seet lii sëy ni laa bi diina si ni ko ah soxna si li nga ma indi tey moom kaa communautaire ku diis la ci man ndax nag lu ne mën naa ko waaye bii moom wax dëgg mënuma ko ndax nag pouvoir bi tax tey jii nga tëj sa gémmeñu patron googu ba dootul wax dootul naa man day óoma ko man sëy ni laa bi diina si ci bii tur bii tur de boo ko doon bind ci xanaa kayitug ciment ngay xotti rek di ko ci rëdd ca la ko seeni diine si mbokk internet yi daal di koy renvoyé ci ñaari mbokki sëriñam ku ñuy wax Alioune Beña ak Oka Okan moom Alioune Beña ak Okan de yi dañuy yëngu ci wàll wi ndaw sa sampaat ay xelam wuti ca ñooña ndax jàpp na ni daal pression bi ñu koy tegal ak situation bi muy dund moom su fay direk dina dem ci jeel bi ca la daal di ñëw sampi yi xelam ñëw ci sëriñ si bi mu ñëwee nettali problème am ñaari sëriñ yooyu daal di koy déglu ndax kenn ku ci ne dalaa fekk ci sa barab maanaam sa makkaan sa dëkkuwaay ngir nag man laa solicité ay pouvoir mystique ñooñu daal di koy déglu mu nit li ba mu nit li Alioune Mbaye moom la mu njëkk a def moom daa lekk ci moom juróom-ñaari millions million millions kan daa di lekk ci moom deux million cinq cent cinquante sept mille cinq ñoo ñooñu nag gën a daaj pont ba mu sar pont ba dugg lii doyati na waar mbokk yi ma ne la mbir ma fan la mujjee ci loxoy yoon ci tribunal la mujjee Alioune Beñaa moom ba mu déggee ni dossier ba dem na justice te lekk na xaalisu jàmbur te dexu lenn pexe yoo xam ni ndaw si mën naa mën a delluwaat ci barabu liggéeyukaayam te du am benn jafe-jafe patron moom daa sampi xel réer menteñ ca diwaan ba kenn gisatu ko ni fes moom moo njëkk a lekk sept millions ookan ak Seyni Laabidine Si moom ñoom dañoo daal leeni jël si ñu daal di nag dem euh, leeral yi li nga xam ne moom la ñu posé comme acte ci tribunal flagrant délit bu ndakaaru ñoom ñaar day tëj nañ leen juróom benn weeri kaso yoo xam ni benn lañ cay tëdd bu na sukkandikoo mbokk yi ci source confidence yi nga xam ni ndaw si nga xam ni moom moo dund loolu ak sëriñu tariyaax yooyu ci kanamu àttekat bi nee na cousin ak patron daal wala cousin nekk patron moom daal dafa ni daal mbir mi moom faaw ñu yóbbu ko ci justice ba mu déggee loolu nag teel daal di dawaat ci seeni laa bi diina si moom mooy nitilde ci kanamu àttekat yi loole laataa ñuy ñëw tirbinaal la nee na dawaat bëgg wutaat solution magique nettali ko nee na loola day mujjut antu leneen la ca des nee na moom ndaw si mooy nit li nee na bu boobaa nag seeni laabi diina day daal di jouer rôle envoyé leen ci Alioune Beña ak Okan nee na kenn ku ci nekk lekk ci moom koppar yi nga xam ni lekk na ko ci génn ay sarax ci def ay sacrifice ngir nag mbir mi antu nee na mbir mi di dem temps bi di dem cousin bile rekk teg ko pression xaalis bi dina ñëw walla ñu dem ci yoon ndax amoo dara loo xam ni wax dëgg manqué la nga ko boo liggéeyee ba weer dee dañ lay fay looy bëgg itam ci teraanga ñu taxaw ci kon du ñu liggéey ba toll fii ñu def suñu xayma comptabiliser suñu kees 16 million daal di naaw ci àll bi te loo xam ne mën naa daaneel entreprise bi ndax ku xam multi service xam njëndum bagage ak fay personnel ak barab ba nga xam ni fa ngay yëngoo ca ndakaaru nga koy fay muy location yooy yëpp rek mënta nekk loo xam ni day naax saay mu nit li nit ñi dégg parce que ci nit li googu itam ci tirbinal avocat yi nga xam ni ñoo yor dossier yi ca la ñuy sukkandiku àtte bi loolu amee mbokki internet yi moom ndaw si xam ni juum na xam ni juum na waaye nag moom bàyyi na ba tey ab xulloo bu metti ci sëriñ si ñetti sëriñ yi nga xam ni ñoom ñoo ko sekkoon ci dossier boobu ba xulloo bu metti ndax kenn ku ne yaa ngay menacer sa moroom marabu yi mani la am na ci koo xam ni ràmbu na 4 million daar daar moom Seydi Laabi nag mi nga xam ne moom commission la amoon ci marabu yooyu moom xamul moom fu muy taxaw waaye kii di Alioune Mbaye ñang ak Okan ñoom kenn ku nekk dangaa bëggoon a wane say pouvoir mystique alors que pouvoir mystique yoo xam ne la teguwul fenn maanaam amoo benn xam-xam boo xam ne wax dëgg li ndaw si soxla danga koy kii danga koy génne kenn ki sax dem na ba promettre ndaw si ni ko naa la defalal valise wu xaalis woo xam ni wax dëgg jafe-jafe million millions bi da nga koy teg ci suuf dangay yëkkati valise bi rek dem ba ci sa patron jébbal ko ko ni ko say million millions ngi noonu su la neexee sax nga tànn ci li nga ci soxla yóbbu 16 millions yi ndaw si gën a dof gën a gëm mu ni ko nag pour ma defaral la lool il faut nga jox ma 2 millions 557 mille 500 loolu day ookan moo wax lool nee na ko boo ma ko joxee damay jënd benn mercure. ak parfum bi nga xam ne mooy multiplier bee pour que valise bi bu ngoonee nga mën koo jël si tey boobu valise da xam naa buy dem day wut ko ko jàppale naa ci kërug ookan bee Jóob ak situation bi mu dund mu dem jëli valise woowu ñàkku ni day ànd ak mbokkam mu ko ko jàppale de ndeysaan ndaw si gëm lijjanti deux millions cinq cent cinquante sept mille cinq cent yi ñëw teg ci loxo sëriñ bi moo ne ginnaaw sëriñ bi daal di wuti ginnaaram ak yu baaxam di bim ju nooy bitéeli boisson mi sedd jaaxaan di raay code ak tëru bu ñëwee mu dajale ay ay lettre alphabet A rëbëje ko def ci ay pilis sama ki mooyam daal di ko koy jox ndaw si sanko ciy ciy Sénégal ciy àdduna bi doyati bi loolu amee ndaw si dama dema dem nag ba xam ni moom ñaari sëriñ yi ñu ko dugal jële boo xam ni wax dëgg gën naa yokk problème am gën naa yóbbu am xelam gën na koo estressé gën na koo dofloo ba moom xamatul sax nan lay def la mu bëggoon yépp sax muy teg tëj ni patron bi da koo teg ci suuf parce que xam na ni fi mu dugg baaxul te du ci génn cëtëtëtët yoo pëp pëp pëp waar li may wax doyati waar moom bee jóob ndeysaan mujj teg loxo yi ca walis woow ba mën a satisfaire ka nga xam ne moo di patron ba lan la def di menacer marabu ya dama leen yóbbu ci yoon war ngeen ma tas ngeen sama yaakaar li ngeen waxoon amut ñoom ñooñu ñëpp nag ñu buub leen yóbbu ci yoon ci kanamu attakati moom ndaw si ndeysaan mu am benn désarroi am ak jaaxle am ak désolation ñaari prévenu yi nga xam ni moom jàpp nañ leen ndax nag benn marabu ba dafa sampi xel Alioune Mbaye Niang moom nee mes ni menteñ daw ak koppar yi nga xam ni jox nañ ko ko waaye nag laabi diina ak okan ñoom ña ngay taxaw di jàkkaarloo di nangu seenu njuumte ni ñoom dey ñoo nekkul ci dëgg ndaw si dafa ñëw ci laabi diina si ngir wut ay càngaay ngir mën a bokk ca la nga xam ni moo di tëj gémmiñu patron ba du wax moom amul pouvoir boobu mu yebal ko ci a Badara ñaa ak okan ñooñu itam ndekete yoo ay dóorkat lañ nee na lii de ma dugal ci problème bi lu ñuy jéggulu leen nag waaye ñun ñoo tooñ moom loolu la xamle moom okan moom dafa bëggoon a weddi la nga xam ni moo di paar ba mu ca am déedéet déedéet déedéet laa bi diine si moo bëggoon a weddi ndax nag kon Omar moo confirmé waaw Omar a confirmé ngeen baal ñu Omar moo moom Omar moo confirmé jéggulu mais laa bidiine si moom dafa weddi tuuma yi ni commission ya nga xam ne sax dan ni ko ci dinga ko ca am ci 16 millions yi nee na loolu moom amu ko ci ci million yi fa ndaw si jotee joxe amu ko ci léegi nag mbokk yi coow li nag mi ngi ci tribunal ñoom itam ñu yor seen fiti gaynde taxaw ñu yor seen fiti gaynde taxaw kenn ki ni moom mën naa rembourser ci kanamu àttekat bi waaye mësta wax ni ko naa la multiplier ay bee kon kan moom moo fas yéene rembourser deux millions cinq cent cinquante sept mille cinq cent yi nga xam ne jël na ko waaye mbokk yi xam ne ñii reconnaitre nañ seen culpabilité ci leen parquet daal di daaje juróom benn weer yoo xam ni ñaari weeri kaso leen ciy tëdd mbir mi dinañ ko délibéré ci tribunal waaye Umar moom lañ koy toppe mooy coupable d'escroquerie et charlatanisme njublaŋ lëkkaloo ak jaay ak pouvoir mystique te nekkul ci yow Seyni Labi coupable de complexité de ses chefs maanaam fexe ba wut ñaari nit ànd ak ñoom ci benn complexité ngir ñu njubleen doomu aadama moom loola leen koy toppee tribunal nag daan na leen waaye seeni bi nee na dina verser trois millions cinq cent ngir nag réparer cause préjudice confondu yi nga xam ni am na ci diggante ndaw si ndaw si nag man gisuma tribunal daan ko waaye sëriñ si nga xam ne ñoom la doon jëflanteel pour tëj gémmee ñi magam ah wala cousin wala patron ñooñu day ñoom ñu ngi ci guttàngaas mbokk yi fee baa ngi nii mu nekk fee bu doy waar lii day wane rek ñàkk tey doomu aadama ay koppar luub na ci kees amaana mën nga koo jël amaana mën nga ko bañ a jël ñu nax la loolu lépp day dal nit ci entreprise mën na laa nax kenn marabouté la ñëw encaissé ko dem wala ñu nax la ci sa biiri calcul xaalis bi réer la nga waroon a def mooy ànd ak dal expliquer sa sa sa patron donte sa cousin la ba mu leer naññ ci boppam ngeen xool ay pexe dox ko ci biir mbokk fay bor bi te doo leen yéeg ak wàcc yow itam pression bi tax nga wuti ci ay maarab bu ngir tëj gémmiñam mooy xëy na euh, bañ nga sa kersa weeru xëy na bañ nga nit ñi xamal la xëy na bañ nga entourage bi nga dëkk itam ñu nekk entourage boo xam ne dañ lay xeeb loolu lépp yi daf dafa taxaw sëriñ si itam wax dëgg réew mi bari na ñoo xam ne dañuy sëriñtu def sa dara rek lu sa pantre toog te yow liñ lay sollicité mënoo ci dara xam nga ne loo lekk barkeelu loolu itam lu doy waar la kon mbokk yi feebaa ngi nii mu ne feebu doy waar dal jigéen te Ndakaaru metti loolu nekkoon ci multi service doon liggéey fukki million ak juróom-benn 16 millions daal di cay luub ci ay koppar ñooña taxawu ko muuti sëriñ ngir tëj gémmeñu patron ba gis ngeen fi mujjee ak tribunal. kon nag mbokk yi fi la ñuy yem rek di leen wax ngeen yokk seen i abonné ak di partage bi waaye ngeen koy commenté ba mu gën a law saa suñu xëy man di leen ko faram-fàcceel ñi ngi leen jaajëfal sàkku ko ci yéen ñaan leen kenn dalu jàmm jërë ngeen jëf